leen ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fàttalante di ko tàmbalee ci suñu bopp ak bokk jullit yépp ñu xam ne ndigal yi nga xam ne suñu borom daf ko gàll ci suñu loos cee benn ca yooya bokk ci lu nu dajale fii su ko nit ki def dafa war ba sàmmoonte ca ak nañ ko ko digale bañ caa yokk bañ caa wàññi su boobaa nag sañ naa yaakaar lu mu a amee yàlla na ca tasaleeg moom lii tax ñu sañ koo yaakaar nag fekk dañu koo jëfee ni ñu ko sante mooy luñ ciy def rek rawatina bii nga xam ne moo ñu si dajale muy julli te nit ñi dem ba miin ko te ñaareel bi lu miin man man si na ko bañ a jox yitte dem yàlla na dëgg-dëgg moo tax faw buñ ci bëggee dajeek la ca suñu borom waajal ngir ñun yàlla na jëlee moom faaw dañuy dem xam lu ci ana nuñ koy defee ba mu tudd lu wér xam la koy yàq xam la ca bokk ak la ci bokkut woroom xam-xam yi yëpp juboo nañ ci ne e, ñeent yooyu xam ko ci julli gannaaw tawxiid moo ci ëpp solo mooy xam atta ya charte ya ponk ya ak yi koy yàq euh, li tax mu am dara jooju nag moom julli moom rekk la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne te moom yàlla nee na woon du waxe bakkanam wa ma yantiqu an il wa ma aataakum rasulu fa xuduhu nee na bu ëllëgee yàlla di jëkk xool ci jëfi jàmm di ko ci àtte muy dem aljanna julli moo ci jiitu su melee na mel dootu xool la ca des waaye su melut na war a mel nag lépp lay xool par benn ci càmbar loolu nag li ko waral mooy julli moo ci gën a dëkk saa su nañu fàttaliku nit ki lu muy def juróomi yoon bis bu set ba mu mat juróom benn fukki at su ko mënut yey ñëw par at taxul ñuy wax moo tax bu ëllëgee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee xool ci jëfi jaam bi dañuy jëkk xool julli su melee war a mel rek lépp jag Euh, julli moomu nag dafa am yu ciy daje ñu ne waaja julli la daa am yuy daje ne ñu ne mooy julli ka koy def am yum dajale te mooy yooya benn bañ caa yées benn bañ ëpp bañ ëpp bañ yées ñu ne kii julli na yonent bi sallallahu alayhi wa ngi nii fekk na ci dàkka ji euh, waa joj na jullee ba mu sëlmalee yonent bi ko woo ba mu ñëw mu ne ko loroon def nii mu ne ko julli mu ne ko déedéet julli woo demal julliwaat mu def nam defoon bu jëkk mu ko delluwaatal mu def nam defoon bu jëkk yett yoon yonent bi ne ko jullee goo de mu ne ko yaa rasulallah maa ngi waat yàlla mi la yónni te li ngay wax lépp di dëgg gannaaw bu ma la gëmee fa suma yéenee wax lu dul dëgg nii laa ko mane nii laa ko mane wax ma nu muy demee ñu koy defee ba ba tax ma julli loolu lañ cay dégg mooy kooka daa toll daa jëfe fa mu toll noonu la ma nekkul waaye nag mayuñu kenn mu noon nii laa ko mane rek da koy tàmbalee ci ni mane jëm ca nam gën tey nag dañ ci to euh, tànn benn tomb ci julli mooy sako si si nit war a àndal bu koy def teeylu ko fu ci nekk bu ca tolloo euh, ki koy xool xam ne jox na julli xam-xam ndax fu mu ki toll rek teeylu na ko ba def ko nañ ko santaane ana kooka nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa Eh, ànd ak sago ak dal googu ma ma bëgg a waxtaane muy tomb boobu ci lu gàtt eh, téere yi nga xam ne moom la kuy jàng fiq di tàmbalee am na gox yoo xam ne eh, al axdari la dale mag ñi daa ko wax laxlari ca bopp laxlari yu sax man nga cee wax ne nit ki wut a def lu mu xamul àtte foofu boo déggee mu jëkkee ko rek mooy li mu bëgg a jàngale lu ci nekk daa am lu ko tënk fi muy tàmbalee ak fi muy yem loolu ñi xam bind xam nañ kuy tàmbalee bind rek wax ne nit bu mu def lu mu xamul lu muy doon ci mbind bi euh, dal googu ñiy jàng téere yooyu tàmbalee ci lu ñu gàtt gàtt bu ñuy lim yi nga xam ne mënut a ñàkk ci julli bu julli doon jëmm ñu ne cër ya cër mooy farata bu ñu nee farata mooy cër cër yi julli am fukk ak juróom benn yi ñu ko lim ñenn ñi fukk ak juróom euh, ànd ak sa ci biir julli gi fu ci nekk nga taxaw fa bañ xam ne def nga ko ca la bokk kon mënu ca ñàkk nit ñi xamee rukkoo ak sujjóot ne ci julli la bokk ak taxaw bu ko mënee su mënul sàkkal nañ ko pexe moom muy def ba julli ci la ànd ak dal ak sago ci biir julli bokk te kat cër yi julli am ñii la fukk ak juróom la ñii la fukk ak juróom benn bu ca waay bàyyi julli nga mën a gudd manqué na dal mi ngi mel ni nit koo xam ne yàlla da ko nattu euh, benn tànkam yoratu ko wala yoratu yan benn loxoom wala daal ñaar-ñaar yi am daal benn benn manqué na ca benn yées na ci su boobaa bare lu ñuy def la loo xam ne dañuy seet ku am yaar yëpp moom lañ cey gën a tàmm ba ba ba ba mu fay sës waaye bu dee julli nag moom cër yooyu ku ci bàyyi benn bu ko xamee ak bu ko xamul julli ga baaxut tal ànd ak sa sago nag ci la bokk anoon yonent bi jàngale woon kooku nu muy jullee daf koo tàmbalee foo xam ne bu ñuy lim julli sax duñ ko ci limaa te moo ne ca la bokk ko ne soo bëggatee soo jógatee jëm ci julli fa am pas-pas bi yaag yàlla ngeen xam ko lii tax nga julli nit ñi lay xool xam ne julli nga mooy da ngay wuti ndox mu set wicc ndox mu set ci lislaam nag mooy ndox moo xam ne amul xet def amut cafka guñ ca def amut melokaan guñ ca def boo mënee toog ci barab bu laab ba ndox mi bañu tës di dal ci saw yaram doo ko xam fu laaba si gën nga jàpp jàpp ñu bari xam nañ ñu koy def soo noppee nga taxaw ci lu set wecc jëm xib la soo mënee liqaam nga liqaam soo munta liqaam ndax kuy sogu dugg la li ko tàmbalee kero rek mu tàmbalee jàng nañuy liqaame daal di wax allahu akbar mooy tàmbali julli jàng fatiha ak lu yàlla may ci alquran doonte ab aaya xeebuma ko nag waaye am na ñoo xam ne foofu la seen man-man toll su soo noppee nga rukkoo wax rukkoo wax nag ni koy defee ni ko fiq santaane ko def euh, fam ko ne fa nga jàpp say wóom ak na nga koy jàppe da teg sa loxo ndeyjoor ak càmmooy yaari yoxo yépp ci say wóom téye bu dëgër bu téye bu dëgër moom na muy sëggee dana baax am na ñoo xam ne dañuy jàpp seen ay wóom ci tegg bi nga xam ne loxo yi day lëng mel nii mu yuub mooy sëgg ba nga xam ne jëm bii day bëgg laal woo moom déedéet loolu bokkut ak rukkoo ni ñu ko santaanee mooy dangay ngay téye ci say woom euh, loxo yi bokk ak tànk yi nuñ jëm su boobaa dana day jub xocc su ko defee ku tegoon ab néew bi maçon yi tabaxe ci gannaawam day fekk ne néewate na wala boog ñu teg poto kaasum ndox ca ca kaw diggante ndig xawli digg gannaaw mu yam kepp mu ne fa teg ab diir noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa su ca noppee mu jugaat taxaw ba taxaw temm mel ni ku tëdd jaaxaan tàllale loxoom li muy taxaw dafa teg soo ko jëm ca sujjóot sujjóot ba it juróom-ñaari cër koy def moom lay jeexale bu ci kanamee su fa su sujjóotee ba ca kanam ñuy jullee ba rak raka yëpp mat su boobaa nag kon tudd nañ foofu tuddale nañ fa ànd ak sago akuk dal ànd ak sago ak dal googu nag laay tànn mooy loo ciy def nga def ba fekk ab diir te am na yoo xam ne bàyyiwuñ ko xel buñ taxawee di julli danañ wokkutu danañ bébbli far ba wutuur ñu waxu araf boo xam ne bëgg ci julli bu ñuy tisli am na yoo xam ne dañ dañoo ànd ak seen sago ci tisli ba bu ñu tisli dañuy waxaale dara loolu tam lu ma a bàyyi xel ci julli la donte ci yi ñuy boole yi yàlla booleeg nit la da koy saf rek def ko waaye diine jàngaloon na ko booy bébb li nooy def ak booy tisli nooy def booy bébb li da ngay ub sa gémmiñ bala ngaa wax dara sooy tisli boo amee kaala wala soo loxom bubb nga bu dul yi ñu ciy wax yépp sax tis li indiwaale ay ngelaw ak yëf-yëfaat yu jóge ci sa biir te fekk am nga jàngoro yi diine moom dana nga ub sa gémmiñ rek kenn bañu dégg su ko defee mu taxaw temm ku ci nekk mu ànd ak ku dal ak ku wegeel am na ñooñu nag buñ taxawee dañuy def lu nekk di jaayoo hmm. da nga ko gis jàkk yi bu bu waaj yi jàng ba agsi ci wala daal leen am ñoom ñëpp ñooy jaayu nii sago siñ santaane si julli gi mi ngi bàyyi lu réere ci julli gi nga teg su ko defee bu rukkoo xayee nu mu ko neexalee rukkoo am na ñoo xam ne dañ naan sàng mel ni njamala njamala dem taxawee xam ne boo ci tegoon sax ab bindukaay wala lu ko gën a tuuti mu baras ci ku daal na sàng bu ko defee bu taxawee bala nga ne benn ñaar mu wéy ca rukkoo ci sujjóot sujjóot ba it day mel ni ni gën a di ganaar lu pepp mi bari bari par benn lay jël moo tax day sigg sigg rek su fa jógee waatee ko neex lay toogee daal di gaawaat am na ñoo xam ne sax ñaari sujjóot dañ koy dañ koy def bil jumla en gros lañ koy naan nii rek nga defee ne tooga ci da ñu sujjóotaat gaaw jóg taxawaat ba ci njàngeenu alxuraan am na ñooñu da ngay dégg ci taraawa yi ñu def jàkk jàkka yi ñu naan jàkka sàngam wala diw sàngam moo gën a gaaw nañ fa dem xamut ne day julli xamuñ ne talaata yooyu si julli ca definu julli ga ana luñ jubli si moo gën a gaaw nag tayal tayal si julli nag <coughs> suñu borom mi ngi ko boole si melokaani naafeq yàlla nu ci yàlla musal ida qaamu ila salaati qaamu yura yuraauuna annaasa wala yadkuruuna allaha illa qalila mudabdabina bayna dalik laa ilaaha ulaa wala ilaaha ulaa yal nañu jël musul miin nañ ko fa gis rek dara jëlalu ko di tardé benn bés rek moo ko fa yóbbu waaye fa gën a gaaw lay dem rek gaaw def ko dem ci leneen dóor ko mu daal ma dem ci leneen bu ko defee ñaari minute ñett rek mën naa gaaw paccax paccaxi jàpp gaaw cappat daal di gaaw dem bàyyi farata ay yoon yoon te ni ma ko misaal léegi bàyyi farata ab cër ci julli mi ngi mel ne ku ay jërëm manqué benn te am ca ñaar euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi ma ne ndax kenn ci yéen bëgg na su tàmbalee julli rek yàlla du muuy wan ko gannaaw waxin la mooy daal du ko saf waa ji li muy def du ko saf ñu ne ko doot loolu koy kenn bëggu yàlla ñu ci yàlla musal mu ne ah waaye ngi nii ñoo xam ne kat buy julli doonte deesu ko yàdd ci julleem googu yenn yàdd yi nag waaye dañ koy laabiire ndax ka nekk ca peggam te def ko raw nañu bari waaye liñ koy digal li ko li koy laabiire mooy lii muy def mu am ca dara bu ëllëgee mu baax la ca yonent bi nag ne ki nga xam ne bu tàmbalee julli yàlla du mooyu wan ko gannaaw bëgg ko xool ndax daf koy soof mooy koo xam ne bu rukkoo ay doo ko xàmmee ak ba mu taxawee dana sing taxaw dana sëkk ñaari sujjóot yi am ci rakkan bu nekk en la koy def da koy si am sujjóotee ba toogaat doo ko xàmmee ba xam toog na ko la toog loolu nag bokk yi bu dul woon dara it di jaamu yàlla tudd ci yàlla yàlla du muy yàlla ñu mi ngi mel ne ku fonkub rek ab sëriñam wooloo ko ci kees gam yi fanaan di ko fa liggéey looloo xam ne moom képp la fa woo mu di ko def defin woo xam ne bii ko woo di ko liggéeyloo wala bu koy liggéeyloo du ko xool faaw mu war keneen liggéeyloo ko ko mu defee ne ni ngi baax te dara baax. hal nunabbi'ukum bil axsarina a'maala allaziina dalla yaxsabuuna annahum yaxsinuuna sunaa yàlla yàlla musal ci loola moo tax mu ne waxuñu ngeen nekk ci julli gi sax dal gi ngeen ci war a àndal waaye su ngeen jubee jàkka ji ñuy liqaam sax bu leen waaxu naan dañ may raw dox leen ndànk ànd ak seen sago lu ngeen fa fekk baax na su noppee ngeen àggale da gis ñuy liqaam rek ku jógee fu sor di daw naan damay bañ ñu rukoon yow kay ginnaaw tax na la jub àndal ak sa sago rek dox ni nga mën a doxee ba àgg si jàkka ja soo fekkee ñu taayee sax ñuy taayee ju mujj sax soo kàbbaree fekk leen fa càngam am na ñooñu it dañuy mooy fii siñ bu mag bi di waxee ci benn téeréem wa liman adraka fii ma imaamahu qum salataka tati soo fekkee imaam di taaye sax nga fekk ko ci taaya ji ci julli gi nga bokk la nga ca bokkee mooy doole xamaat yóbbaaleel na ne ko da ngay jóg rek tàmbalee jàng kon ca kon bunt bi dafa yaatu waaw jërut xelu yonent baa ngi ko tàmbalee ci tere tere di def ci jàkka ji di waaxu di ŋaat ŋaati boo àggee di xel di am na ñoo xam ne dañuy yalkat ndax seen kattan mayu leen yenn waaxu yi wala yenn xel yi jëru ko nag ndax julli jeexagul ku dund li nga nar a dund boo ko boo ko bëggee def noonu da sonn te ad lépp dafa yomb daa jàppandi am na ñoo ñett euh, ñàkk gi ànd ak seen sago day dem ba àgg ci bu ñuy sujjóot boobu ma waxoon sujjóot juróom ñaari cër moo koy def euh, mooy yan mooy yaari yoxo ngay dëpp ci kaw suuf mooy jiitu loxo yi cànko yi ñooy jiitu ci suuf nga tàllal ko daal di fab jën yi ak bàkkan bi dëpp ñaari woo moom waxale wuñ ko ak cati waaraami tànk yi cati baaraami dëy yi am na ñoo xam ne cati baaraami dëy yooyu du daal suuf dañ koy aj ca kaw am ñoo xam ne ndànk la ñuy si jóor ndax suuf la te bëgguñu seen dëbi tax suuf ak seen bakkan bu dee suuf it am na ñoo xam ne seen yoxo yi dañ ko diw ba mu bat xam ne bu ñu sëlmalee bu mënta ñàkk bu ñu sëlmalee li ñu jëkk def mooy faxasu faxas loxo yi faxas jëbi ndax bañ a taq suuf te kilifa ko doon yare fii ci Tuubaa mas naa wax ne dem leen wol ma diw xam naa ne koo ko gis fi ne ma ngi ca boppam ba di nongu nongal rek kooku agsi mu demee nam ko wax diw ko mu doy ko jàrt ba mu agsee kilifa ga la mu njëkk def mooy daal doxal loxoom ci biir kawar ga jaxase ko ba mu jaxasoo mu ne ko ah sa nopp yi di nes nes ak sa kawar gi de xanaa xam ne sa nopp bii nga xam ne mooy nopp càmmoñ boo faatoo bañ suul la ci la suuf si njëkk a dugg ba fees dell doo ko mën a jiitu kon diggante bi ngay jur sëgg am na ñoo xam ne nanguwuñ seen jëbi laal suuf loolu it day yóbbaale laltaay yu nooy yi ñuy lalaal ñenn ñi ci jumaa yi loolu xam-xam dem na ba àgg ci ñi ngi ciy warante ba xam ku ci julli sa julli baax na am de laltaay yu nooy yi lalal diw nga xam ne moom képp moo cay toog bu ñëw dañ koy lem wax tàmbali na cee am fi ndax kooku lu tax mënut sujjóot ci kaw tax bi bi nit wala ci kaw perong bi ci kaw suuf si ba daa wadd sujjóot loolu it day xañ ab sujjóot te sujjóot ci farata julli la bokk ci cëri julli la bokk kon juróom-ñaari cër yi sujjóot it bu ca manqué rek sujjóot ba manqué la te sujjóot ci cër la bokk ci cëri julli la bokk waaye am na ñoo xam ne it bu leen julli bu leen ay rakkaan rawee euh, balaa imaama sëlmal ci wet gi ak wet gi rek jóg nañ taxaw gaaw te bu imaam sëlmal ku jóg ànd toog moom ak julli dañ naan teg ci dal gi ma waxoon rek ba mu sëlmal ba noppi ba nga xam ne je ak julleem jeex na tàkk nga soog ne sempet ndànk indi lañ la rawee am ñoo xam dañ ko xaar wala bu ñu bëggee naafila dañ ko gis sax ci yenn réew yi yenn réew yi nga xam ne dañuy tere ku julli ba noppi di tasab tere wuñ ko tere wér waaye sikkal nañ ko daal ba ñu bare bare dañuy waaye na man gis ngeen ma nii man bokkuma ci ñuy tasab bu ñu naan asalaamaaleykum rek ñu ne ñoo kat tàmbalee naafila déedéet neel teg ba ka doon sëlmal ba jeex tàkk nga xam ne foofu la julleem yam bu fekkee dañ laa rawoon nga soog soo dee naafila nga soog a naa ndànk naafila waaye soo fexee ba jëkk koo jóg rek léegi julli la ci biirum julli waaye am na ñuy a ñoo xam ne it seen asalaamaaleykum it ku yàkkamti mënu koo xaar dañ koy baaral baaral goo xam ne gii di ko neexamtal di ko way ba ñooñu dañ naan ñokket jóg ñoom te fekk seen mënagul sax ba jeexal day jël temps bi seen mën loolu it digal waaye am na ñoo xam ne it bu ñu ànd rek kii jiite naam duñ ko jëkk kàbbar kàbbar bu jëkk bi waaye lu dul kàbbar bu jëkk bi rek mën nañ koo jëkk def ñoom ñu topp ci ginnaaw bu jeexalee dañ dañuy wane ne ñoom mokkal nañ alxuraan xam nañ fi fi saar bi jeexee wala fi fi muy fi muy rukoo ñu gaaw rukoo bu ko fa imaam fekkee ba rukoo bala moo sëgg mu mel ne ku sonn imaam a ngi rek ak dal moom ak tuma ni tuma ni na ci biir julli gi mu ne ñokket mel ne mënuma ko am na ñoo xam ne bu taxawee temm balaa dem ci rek ci sujjóot ba ñu gaaw sujjóot ñoom bu sujjóotee ginnaaw ñoo ko fa jiitu bu ñu ko fa bëggee xaar day yàgg ñu gaaw jub toog toogaan su jógee tee toog bëgg sàmmoonteeg daal fekk toog nañu yàgg ñoom ñu nga dem sujjóot kon léegi day mel ni kabru almal képp li leen jiitoo waaye jiite ñoo ñoo ko ko jiitu waxuma la jiitu waaye ànd ak moom sax baaxul ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne nañuy topp ci ginnaawam ndax moom mi doon jiite ci jamono yooyee ba di ko wax la tax mu di leen jiite mooy dañ koy nëkkam def ba noppi ña ci des to soo ko def soo ko def loolu itam lu mët a bàyyi xel la ci ak jub kon daal fàttali gi mooy julli miin nañ ko miin koo xam ne ñu bari def nañ ne mën nañ ko ba def gi ñu koy def bàyyeetuñ ci xel waaye tàmm rek la tàmm la waaye bàyyeetuñ ci xel bàyyi ci xel nag bokk na ca cër yi nga xam ne ci julli gi la bokk moom lañuy ñuy jëkk xool ba xam julli gi mat na su cër yooyu matee ya cay topp nga xam ne moo ko tudd ay teggiin walla ay sunna nga xam ne ku juum ba bàyyi sa benn wala mu juum dolli sa benn julli gi yàqoowul waaye am na nu koy defare yooyu yëpp lu ñuy jàng la ba xam ko ba mu leer nañ nga xam ne waxuñu tàmm ko nii rek di ko def waaye da koy booleeg xam loo xam ne bu yomal xiyaama te bis bu mu gën a jege moom lañuy ñuy ko xool ci jëmi jëfi jàmm su baaxee la ci des lépp mën nañ ko bañ a xool ndax lii mën na ko te moo ci ëpp solo gannaaw tawxiid lu mot a sonne la waaye it euh, melokaan yi muy àndal ñu ne julli na it nit ki war naa fexe ba fam ko toll mu weesu ko ba def ko nañ ko nañ ko nañ ko war a defe jële ko ci njàngale bi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ba waajee julli mu ne ko jullee ko jullee ko ba mat yett yoon mu ne ko nuyu jullee mu jàngal ko ko kooko foofu la toll woon kenn ku nekk nag fi mu toll da da ko war a fexe ba déggloo na ko te defaral na ko ba mu ëllëgee suñu lépp jàppandi li may jeexal di ko fàttali mooy am na ñoo xam ne eh, suñ ñëwee fekk jàkka ji ñi ngi taaya dañu naan naa bàyyi ba mu jóg taxaw ma kàbbaar déedéet ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma jàngalee waxuñu taxaw di ko néeg muy taaya sax waaye man nga boo duggee ci jàkka ji ba jëm xeb la nga kàbbar di dox jëm ca sàppe foo leen fekk nga sof ca foo leen fekk boo fekkee ñu toog nga toog bu dee bu mujj bi la njàngalem sëriñ boobu yomb naa mokkal loo ndax ay way la wa qul liman adraka fi tasahudi imaamahu qum wa salaata kabtadi koo xam ne daa fekk ñuy taaya sax na kàbbar fam taxaw dox nag jëm ca sàppe sax suñ ne asalaamaaleykum am na bénéfice jullik mbooloo ndax ca julli ga la bokk ndax lan lu liqaamaat xum wasaate eh, nit dañuy ber seen sàppe su bopp tàng fii moo am ventilateur ak fee sàppe sa diw diw ñoom taxaw na ma kooku nag bokk yi war nañu ko laaj ba xam lu muy def lu dul julli ci si jàkka ndax jàkka moom kenn amu fa place kañ fa bàyyi leen place te bu ñëw dañuy seet keneen xanaa mooy kay jiite xëy na te kooku bu ñëwee si dañu sa kanam adduna taxaw waxuma la taxaw di xaar kenn moom ci jàkk rek bu fekkee ñu sujjóot na gaaw kàmbar sujjóot ànd ak ñoom ñu fekkee mu na gaaw su fekkee ñu taxaw na gaaw taxaw bu ñu fekkee mu taay ñuy taaya sax na gaaw taaya rek toog loolu mooy njàngale Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci seytaane ki pakkam te jégguloo ñu diine bu baax a baax a baax te dajale ñu ci ak lam ca digee yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin